leen ak jàmm jamono ji yéen a ngi doon dégg benn waay buy wuyoo ci turu Fallou Kébé bu ñàkk bakkanam ca Touba ginnaaw bi mu daanoo ci ab fosse moom waa ji nag ginnaaw bi mu tàbbee ci fosse bi ba ñàkk bakkanam police dafa ubbi woon ab enquête ba tegoon loxo benn magam bu mu nekkaloon ca kër ga bi mbir mi di xew moom magam jojee nag di wuyoo ci turu Khadim kebe moom it dafa mujjee ñàkk bakkanam ginnaaw ba mu piqué ab crise ca garde à bu ko commissaire bu Touba defoon sukkandikoo nag ci journaliste bi di wuyu ci turu Pape Cheikh Fall di jarbaat ci ñaar ñi nga xamante ni dañoo génn àdduna nijaayam jii di Xaadim Kebe mi nga xamante ni moom mujjee génn àdduna dafa jabetoon te loole bi ko waa police di jël si ngir yóbbu ko ca garde à loole xamoon nañ ko ba tax mu jàpp ni lile app négligence la moo waral ba nijaayam ji di Xaadim Kebe dal di ñàkk bakkanam tungu ne nag du teew nataal dañ leen di bàyyi rek ngeen seetaan Fall yi di jarbaat ci ñaar ñi génn àdduna asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa taala wa mbokk yi tey dama bëggoon ñu waxtaan si mel mbir dégg ngeen jamono ji sa Touba ñu wax ne dafa am ak mag ku am soixante ans soixante dix ans dugg si ab foos foofu si Touba Guédé dañ koy wax ko Fallou Kébé ñu gën kaa xam ci Khalifa Kébé Khalifa Kébé moomu sama nijaay la moo ma yar moo ma defal lépp ba moo ñu may sax soxna doomam jarbaatam ma ngay sëy suñu kër ca Mbàkke boolu Tuubaa Xalifa Kebe moomu ba mu duggee ci foos boobu yàlla def ko mu dugal si foos boobu ba léegi kenn xamul dugal ba muy nekk ca kër ga mu nekk fa ak magam ju mu bokkal ndey ak baay ñu tuddee ko Xaadim Kebe Cheikh Ahmadou Bamba Kebe mu nekk magam ñu bokk benn ndey benn baay yarandoo màggandoo mën a dem Amérique di ñëw bi ñu ñëwee Kazu Rajab ñoom ñaar ñu jógee Ndakaaru ñëw si kër gi nekk Gédé di ko defar di ko réfectionné far couvre-feu dugg ak sëmi confinement bi ñu tëju Touba toog fa continuer liggéey liggéey kër gi di ca nekk. ci loolu la nekk ci loolu lañ nekk ci loolu la nekk bali xew ajjuma bii daati xew Xalifa Kebe moom di fàllu dugg ci fosse bi far dese defa 19h bi police ñëwee ak sapeur pompier bi leen arrêté ñu génne ko Xaadim Kebe moomu nekk na moom ci kër gi te mbokk ndey ak baay am 67 ans 68 ans diabétique sévère handicapé pied gauche ay fer moo nekk ci tànk bi maladif police na ko comme yow la nekkoon dañ lay jël yóbbu la entendre la commissaire police bu Touba Bassirou Sarr di sama xarit ma xam ko bu baax a baax a baax a baax mu jël ko yóbbu ko sa commissariat ba àjjuma ba léegi ba mu ko yóbbu foofu mu téye ko ba mu ko téyee sama rakib na ko commissaire kii ngay faranloo fii il est maladif il est diabétique te jamono ji neexut comme am na fi kër am na fi mbokk bàyyi ko muy fanaan kër ga boo ko waxtu woo ko mu ñëw nga ententre ko parce que nit du baare boole ñaari pen boole ko rakkam bi mbokk ak ndey ak bàyyi dugg si demen demen wu mel nii nga téye ko moom mi tamit di ko entendre si condition commissaire fi la koy téye du ko bàyyi mu téye ko ajjuma gaaw démb altine mu def crise démb si commissariat bu police bu Touba commissariat bi daal tiit jël seen fourgonnette boobu dugal ko ci boole seeg sama benn cousin bi mu loon foofu ñu yóbbu ko janatu Mahwa Sowetaas yàlla def mu fargaañu léegi nii muy ñaari mettit yoo xam ne polisu Touba moo ñu teg benn bi tooñ une famille tas ak njaboot tas une famille jël naqar yokk ci naqar ndax bu jëyee amee kenn bu def enquête ñu xam fu toor yi féete waaye booy def enquête na nga xam na nga koy defee man li ma xam si enquête bu accusé nit nit ka am une résidence nga xam ko identifier ko jëru tey si commissariat waxoon tubaab koo xam ne dafa jagati yar moom neexut xanaa loolu mooy rey nit ba pare mu ñàkk rakkam ji ba ko rek bàyyi ba nga xam ne bañ amee juddoo ba léegi moom moo ko yar ñooy ñooy ànd suba ngoon kenn mënu leen a xajale nga téye ko mu ñàkk rakkam nga woo ko téye ko dugal ko ci commissariat téye ko garde à ko ba mu def fa crise nga jébba dafa ko animation mu dese kat nga lor ñaari famille loolu laa waxoon dama koy interpellé le ministre de l' intérieur Aly Ngouille Ndiaye un ami un frère ku ma xam depuis Italie di interpellé président de la République Macky Sall sa fonctionnaire yii ñoom ñoo ëpp li ñuy rey Covid laa la wax Covid parce que li ñuy rey nii leer na ma li ñu dal nii dal na ay sénégalais yu bare bare bare bare bare bare si réew mi may ñaan le procureur de Mbacké mon ami le procureur TG tribunal grand instance ñu entendre policiers yi entendre le commissaire entendre njaboot gi xool mbir mu nan la demee lu tax ñu mën fa téye noonu xaadim koy ba mu dee si commissariat bi ban yóbbu ko di ka lagar lagar fas sa loo xam ne ñu ko fenn di ñaan njiitu réew mi mu wax ñi nga xam nañu yor wàll yoon si réew mi ni ñuy traité askan wi billaahi wallaahi tallaahi covid bi ñuy wax ñoo raw covid li ñuy def rey sa rak dugg si soof si amul lu ko gën a metti nga nekk ak moom juróom benn fukki at nga xëy ñu jël la yóbbu la téye la si commissariat ba nga def fa crise ba far desi defa sëñ bi loolu metti na salaamaaleykum wa rahmatulah wa taala wa barakatu maa ngi jégalu ñëpp si kàddu yi fekkee kàddu yi metti na